Bamba Fall jàmbaar mbokku déglukat yi asalaamaaleykum wa rahmatulah rafetlu sen and ak radio Joko FM ni ngeen ko xamé nak dimanche bu jot lay doon ci sen émission jakarlo politique Moussa Poucokay bi Assane ah, Diouf ci xarala gi tay ah, nonk ñu am gan ni tam di ko Mudi mu di nag ah, Mamadou Gueye mom nak danaka di responsable politique bax ñi ci li nga xamné mom mo di kurelu politique bi di APR. Euh, bu euh, président Macky Sall di jiite euh, tey nag moo nekk suñu gaan fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo di toll waaye bi seen kuréelu parti boobee ci gox ba la ñu fay yëngu naka noonu itam li nga xam ne moo jëm ci wàllu politique ci biir gox ba seen doxalin ak lu ñu mel ndax Euh, ku ne xam na ne benn bokk yaakaar ak euh, ñoom waa APR ñoo nekk ci bopp mairie ba euh, ba noppi itam la nga xam ne moom seen digg ak ñi ñuy wujjël ca gox ba itam wax ci wàllum actualité politique ak yu ni mel bu ngeen bëggee dugg itam ci kanam lay doon bu ñuy waaj jeexal 88 628 00 13 def seeni laaj wala itam seen contribution Mamadou Gueye ñu ngi laa nuyu. waaw am contenté lool tay jii nii nga doon suñu gan ci eh, li nga xam ne moom moo di eh, jàkkaarloo politique xam nga nag fii dañoo am eh, mbaaxantal mooy ku dugg rek des na la laaj noo noo noo yow yow noo tudd ak également foo foo bàyyi ko ci leen ngay yëngu ak yu ni mel maanaam ci wàllum présentation tay su ma bëggoon xam kan mooy Momadou Gueye mooy kan. Momadou Gueye benn jégal tuuti micro bi. Euh, Momadou Gueye benn doomu Barni la bu dëkk juddoo Barni màggee Barni yaroo Barni. bon di def politique au niveau du parti bi ñuy wax APR. Mhm. alors euh, loolu également di euh, taxawaay bi ay Modou euh, tey jii ni loolu la boole ak APR ndax gis nañu ne politique lu ci ëpp dañuy seetlu ne la ñi koy ñi ñu fay nemmeeku bokk du ñu doon doon ay ndaw tekul ku la xool xam ne ndaw nekkuloo mag lool lu la boole ak politique ndaw te nga waroon a mën a nekk si yeneen yitte. waaw Moussa comme ni nga wax rek bu ñu nuyoo ñëpp bon di jëlee si nuyoo bi si su la neexee it mën ngaa jël casque pour mën a déggante.

contribution bi ñu war a yóbbu du question euh, dañuy jël suñu poste def ko si dañu gis ne politique mu gën a gaaw pour andi développement sa dëkk ni mu gën a gaawee nag du question comme politique bi ñu wax léegi ñun on est en train de mener une politique générationnelle am politique boo xam dafa am gëm-gëm ñu dugg si APR dañu gis ne Bargny war na mën a gis boppam si programme président Macky Sall moo tax ñu dugg APR pour au moins te nekk fa xee pour intérêt Bargny mais defuñu politique parce que ay ndaw lañu comme ni gars ni ñuy gisee Bon, depuis le début, hein, depuis 2008, je fais partie des piliers de l'APR. Je suis le premier militant de l'APR à Barni, même au niveau national. J'étais là-bas. Hmm. Oui. Le moment a confirmé quoi. Hmm. alors muy lu am solo xam nga que euh, parti yu bëri nañu fi PDS. Hmm. Euh, PIT lu tax nga taamu APR. waaw Moussa mooy li ma la wax léegi rek xam nga ñun dañu juddoo Bargny fekk fa maar mu nekk euh, PS ñu juddoo si fekk ñeneen nekk PDS mais ils n'ont rien apporté pour Barni ba politique bi ñu def politique la politique mais ku ni na ay tali infrastructure maison la femme maison des jeunes voilà donc euh, même euh, le plus récent peut-être le lycée avant ma xawul. politique gis-gis dafa avancé xaar dafa avancé te ñu ay ndaw lañu aussi war nañu mën andi suñu contribution si lool xam nga bu lu ñu gëm mooy peut-être maar moo fi nekk maar la ñuy voté maar mu def baax na baaxul moom la ñu war a voté te léegi aussi ndaw ñi je crois am nañu beneen xaar si politique boo xam ne aussi dépassé na ñoom li ñu xaar léegi. loolu moo tax ñun maanaam mandat dootoo fi toog rek yaa caaral ah. jëmale déwén ñu ah. gëm ne daal yow yaa war a defar dëkk bi kese yow kott yow dong sa contribution baax na baax war nga ko wax li nga xalaat si dëkk yi war nga xalaat li nga war a wax lii xam ne boo ko waxee dëkk bi avancé wala boo ko defee dëkk bi avancé parce que ñu nekk ay ndaw yoo xam ne bon ñun aussi dañ koy wax dugguñu si parti parce que dañu bëgg def politique politique politicien non non dañ dugg si parti parce que gëm ne parti bi ñuy nekk programme bi mu teg parce que ni aussi gëm dugguñu mag si Macky Sall parce que mag Sall lañu gëm dugguñu si mag Sall parce que Macky Sall Sall la sant dañ dugg si APR parce que dañu gëm programme PS la dañu gëm programme yoon yokkute boo xam ne bari ñi war na si mën a gis boppam

seen coordonnateur euh, Assane Mansour mhm. voilà tey suñuy mën a seet est-ce que la nga xam ne moo leen yëkkati woon tey ma nga ca ci bari ñi ndax gis na boppam ci d'abord yoon yokkute gis na également <coughs> boppam ci changement bi ngeen bëggoon ci sur cette alternance générationnelle ALB war fi mën a jëlee Mar Diouf mhm. ndax également gis na boppam ci li xam ne moom moo di PSC. waaw Moussa xam nga bu ñu defee rappel tuuti si élection 2014 yi passé xam nga def day Barth bi dafa jox ay logique cest à ñu def benn bopp yaakaar avec Mar Nous, on a refusé, nous, nous, nous, avec bannière APR. Le parti nous a forcé, il nous a plié le, le, bras. Nous dem en Dahmar, mais nous ma day nous Parce que nous aussi, il y a kon produits. Vous avez Benno Boko Yakar Non, nous ko sincèrement. Nous l'avons on l'a on la magnifié devant tout le monde. Et là, c'était sur un plan purement local C'était local. C'était local. Nous beaucoup nous avec Benno Boko, avec Mardiouf. Beaucoup nous Benno Boko Yakar, mais pas avec marjouf Parce que nous ñu nous ñu que nous dem Bon, parti aussi comprendre. parce que mom limu mu moy peut être moment comme muy gagné muy gagné. Mhm. day gagné après day gagné barni ñu aussi on a suivi la logique de parti parce que aussi dama xalat ne. discipline quoi wa discipline de parti xam nga dama xalat ne parti bo ci nek di yëngatu mhm. bo ci lu wax. bo analyser même bo bañé bo gis abi mu bañ je crois dang ci wara dox parce que lool motax ñu dugg si lool militant wa lool moy militant mais mëno nek ci parti mhm. lu parti bu wax nga def dem def leen ba pare yang parti ñun duñ genre militant tay ñun buñ dem ba gis affaire suñu bop dañuy génn parce que dara teewuñu ko ñu bay génn parce que ñun lépp lu ñuy def ak si logique lañ koy def lu ñuy def si discipline lañ koy def lu ñuy def si discipline de parti lañ koy def kon loolu moo ñu yóbbu ñu ànd ak maar si benn bokk yaakaar ba élection yi ñu ngay ñu perte ko. waaw mais est-ce que euh, tey suñu seetloo euh, bi ngeen bi euh, pouvoir bi di ñëw da ngeen ànd ak Abou Seck mu nekk le maire moom mooy le coordonnateur local donc bu APR ba pare di jiite Benno Bokk Yaakaar à côté également de maar li ngeen doon bañ far mu am est-ce que ci biir deux mille donc quatorze ak léegi. est-ce que euh, li nga xam mom le la euh, aspiration population yi doon séntu yéen wa APR yéen wa ben Bokk Yaakaar andil ngeen len ko. ndax bari na lu nit di jàmbat. ne tay jii ci choono yi nga xam ne di bari malgré vote yi nga xam jot na fi jaar yeb bari ñi dañoo voté pour yéen wa ben Bokk Yaakaar. Mar euh, Moussa pour rappel Abou n'est pas le coordonnateur de la à Bargny. déedéet waay. il n'a jamais été le coordonnateur de la l'APR. ah non non non moo duggee lool munoo ma ko. waaw mais dama dama dama si wa na leer ko. xam ko yow même yow même ce cœur sa kër yow ce cœur yow dëkk am na règlement intérieur am naa dañ ko fa nu nga xam ne dañ fa bañ parti noonu lay doxee parti dafa am règlement intérieur après dafa am règlement intérieur règlement intérieur après mooy kenn mënu nekk coordonnateur te ñëw avant le premier congrès abu même élection n'a pas voté abu n'a jamais été le coordonnateur de l'APR Barth xam nga tey ma jël benn cas si Mansour Mbengue xam nga Mansour Mbengue ak kenn du ko weerante kenn du si coow kenn du si wax parce que il est des cadres du département mas nga dégg ñun ñu Mansour du coordonnateur nga gis ko moom parce que illégitime xam nga li ngay xëccoo ñu jox ko moo gën. mais comment se fait-il que aussi à à ce point. Hmm? yéen bu ngeen jàppee ne Assane Mansour Mbengue seen coordonnateur. Ah. moom mooy jiite euh, parti bi si biir euh, Bargny. Hmm? ba pare.